Nyari kelas yi ñun kos sababon, pas ke api ak ekib. bi dañoo remarqué ni problème saya di ànd du problème effectif problème mu capacité d' accueil Malika mu yoku. yokku dañoo yoku kelas yokk classe ekol saya di ànd étant l' école mère école bi moo fi jiitu Malika ngi yoku, lolo moo tax ñu ne kelas faut ni muy yokkee nag njaboot bu ne bu ñëwee da ngay indi sa sa say doom bëgg nga say doom jàng looloo waral effectif di yokku bu yokku nag dañoo wara a yokku ànd ak ànd eh, malika malika yokku ànd eh, ak eh, jamono looloo tax ñu sababoon d' abord benn classe na ñu njëkkoon a envisager dem waxtaan ak maire maire décidé ci coobareem ak jàppaleem ne dinañu defaral ñaari classe moo waral ñaari classe yi mais fekkoon nañu quand ñu tàmbale euh, ba ba ñu demee gis ko mu ñëw euh, dugal ci loxoom yokk classe yi euh, au lieu que benn mu def mu defal ñu ko ñaar kon nag wax dëgg yàlla lii mooy sabab bi école bi dafa war a yokk parce que Malika ngi yokku nit ñaa ngi ñëw ku ñëw da ngay indi sa njaboot boo indee sa njaboot da ngay bëgg say doom jàng looloo waral ñu ne nañu yokk classe yi ñu ngi ciy remercier maire di ko ci vraiment féliciter euh, di ko nag ne noonu la école am la bu ci jàppul kan moo ciy jàpp kon vraiment ñu ngi ko ci féliciter di ko ci gërëm. voilà en fait comme ni ko directeur waxee je pense que tey Seydi Anta mooy école maire bu Malika euh, je pense que école bu yàgg la yaa a beaucoup de doyens yoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi ci école bi la ñu jógee ñoom par rapport ak seen AP e ak le directeur bi ñu defee seen besoin. par rapport ak maire ne leen dañoo soxla ay salle de classe maire aussi il a tout fait pour euh, vraiment euh, leur leur leur venir en aide ci ci loolu maanaam du ñoom sax lay def mais lay lay aider parce que li ko war la def ça veut dire que nous, mayel leen deux salles de classe ah, bi mu amee aussi ci la ci la interpeller l'entreprise, entreprise Basse Global Business pour tout simplement mu ñëw et gérer liggéey bi looloo waral tey lolo waral suñu teewaay fii tout simplement pour faire. liggéey bi daal mucc ayib nga xamante ne tey ñoom dëkk bi nañ ci gis seen bopp. c'est ça comme ni nga ko gisee on a déjà démarré tey sax lañ commencé liggéey bi carrément ci weekend bi lañ commencé woon doon gas fondation parce que amoon na et tout plan yee nekk ne ngay gis suñu ginnaaw on a deux classes yoo xamante ne tey dañ ko def fondation boo xamante ne tey dana mën a jël deux niveaux ñoom heure bu ñu bëggee yëkkatiwaat ci kaw dañ mën a yëkkatiwaat ci kaw sans problème dal lañ koy def du doon doon du doon arroise dal koy def nga xamante aussi directeur mu ngi koy wax sànq placement bi ci la toilette yi nekkone ñu ab toilette des des des filles légui bon biñu waxtané aussi dañuy refaire les toilettes ci benen secteur bi koku mom néna directeur la sa xel dal ci lool on va refaire les toilettes ci benen secteur bi Inshallah. de toutes les façons dal on fera de telle sorte que euh, école bi dal dinañ am sen sen sen autonomie dinañ dinañ dinañ dinañ indépendant ci lepp nga lepp ne lépp luñ lu soxla élèves yi mëna mëna mëna mëna tranquille maître yi fi nekk aussi ñu mettre dans de bonnes conditions je pense que éducation dañ lo xamante dafa sensible kon donc kiy jàngale il faut nga mettre dans des conditions vraiment yu favorables élèves yi aussi la même chose on fera le tour daal ba nga xamante ni ñëpp dinañ ci dinañ ci sant dinañ ci kontaan.